nga am Touba. mais fas yi ginnaaw ni politique bi amee depuis élection législative ba léegi dafa euh, mm-hmm. bu fekkente ten sëriñ bi élection législative yi mois de juillet yi passé ku ne xam na ni tey waa benn bokk yaakaar mooy waa APR. Mhm. dem nañ ci kër Serigne Touba gi nekk Daaru man Manaan nga xamante ni bâtiment bi Serigne Sidi bu sa ñaar jenn defaroon defal ko Serigne Touba waa APR ñoom ñoo fa doon def am meeting ba Serigne bi yëg ko mu naqari woon ñëpp parce que nag kër Serigne Touba bu ñu fa jàngalee xasaay jàngul fa alxuraan waruñu fa def ay meeting pour Macky Sall. Mhm. bi ko Serigne bi yëgee bu fekkoon dafa wax si jamono yooyu dañuy jàpp ni xëy na ñoom li ñu bokk APR wala li ñu jàpp Macky Sall moo mu wax. bi loolu passé ba élection yi jeex ñu gisaat ni maanaam tey jii war ma ji nga xam moom la war a jox dëkk bi ba tey des na. Mm. ndax tey seesu benn bokk yaakaar ni muy seen permanence waa APR yi. ba fii mooy wax mi ngi si biir dëkk bi ndax am na bu nekk Guédé am na mu nekkoon Daaru Manaan fi nekk maanaam côté arrondissement Ndaam kon jàpp naa loolu lépp bokkul ci warmaay dëkk bi. Mm. te waa benn bokk yaakaar ñoo ko def. beneen bi mooy fan yi si ginnaaw ci la première bi passé ku ne gis na waa kër Ousmane Sonko yi. ci benn audio boo xam ne mi ngi euh, déroulé ku ñu wax Cheikh Thioro wax ko ni manifester nan daje ci rond-point ancien gare su Dakar bi pour taal ay pono man jàpp naa ni lu mel noonu bu fekkent ni tey da dëkk si dëkk bi nga sant Mbàkke la nga war a gën a conserver mooy deru dëkk bi sàmm war may dëkk bi ci ndomb tànk bi nga am parce que man mii di wax a yow nekk naa te ñaari yoon kenn mësuma dégg ma woote manifestation si biir dëkk ba. moo tax nga jiiñ ko Macky Sall ak Ousmane. waaw parce que ñoom ñëpp kenn ku nekk ñoom ñëpp kenn ku nekk say ñooñ. dañoo def loo xamante ni dangaa dindi wormaay dëkk ba parce que tey waa Pastef comme ni ma la wax noonu. Mm. ñoom ñoo woote foofu ñoo dugg si biir dëkk ba taal fa ay pono ba lakk fa kër jàmbur. am na ñu si jot jàpp ñu koy ñaawlu parce que nee naa ma nekk naa député ñaari yoon. gañe naa Touba ñetti yoon. musuma woote manifestation musuma maanaam def benn act boo xamante ne dafay ñàkk worma Touba parce que man damaa jàpp ni Touba moo ma gënal sama bopp Touba moo ma gën a sama ndomba tànk gi ma yor bu ma sëñ bi ne woon kaay nga bàyyi politique bi démissionné si ensemble dama démissionné tok sama kër doog sa tok lool la wara a jëkk lool motax yenn ñi dama leen di éviter pour ñu jiital lool te bañ jiite politique mais fekk da nga japp ni xeyna ki nga andal motax nga nekk député mm-hmm. bu nekkutu yow do nekk dafay melni gëmo gëmoo to wala gëmo sa bop motax tax bi bimu jëlé décision bi ñun ñi nga xamante tay ku ne xam ni Touba man en tant que chef de l'opposition département bi nekk candidat élection présidentielle 2024 Touba moy sama yaakar ci wot bi parce que Touba tay bu mu doon wotel gën nga ne dina fa mëna am 200000 électeurs parce que xamna wa Touba ak yéen mhm. loolu jàpp naa ko loolu moo tax 606 bureau de vote yëpp ba sëriñ bi ne dañ ko fi jëlee. dana am benn impact bu mu am ci électoral bu Touba. ba noppi ñaareel bi maanaam il faut ñu modifier code euh, code bi nga xamante ni mooy carte électorale bi. Mhm. ba pare il faut ñu jéem a xoolaat code électoral bi parce que ku ne xam na ne bu élection desee six mois. Mhm. kenn mënatu sañ-sañu laal lu jëm ci affaire élection mbir mi am na jeexital am na jeexital moo tax jeexital boobu nag il faut dañ si waxtaan. dinañ ci gën a xuus Fatou Abdou ñu bàyyi la nga tàbb ak euh, Benno Bokk Yaakaar euh, bu ñu dee wax Touba euh, le PDS wàllu bi nga bokkoon bëri na loo xam ne élection yu ñu jot a jaay dañu fay am mbo mbooloo bu bari et pourtant am na ay élection yoo xam ne gis nañu caxat-caxatee ay bureau de vote te boobu waxaguñu waxu Pastef et Benno Bokk Yaakaar. waaw xam nga loo gis nekk dafa am benn responsable bu si am jamono élection yooyu ngay wax man mii di wax yow ci laa faloo muy 2017. mais am na boo kundaa wax móorloo benn bokk bennoo bokk yaakaar jamono mooy ki gàddu woon saaku bi nga xam ne moo defoon bulletin Ablaye Wade yi tey bi xamante ni yoon ji mi ngi jàpp sax moom la jàppoon kon jàpp naa ni la may wax sax suur ka rek ni kon waa benn yaakaar waa APR njëkk yàggoon nañ koo def ndax njëkkoon nañ ko def ndax tey ji foofu nga xamante moo ne nekk unité la woon fi la affaire bi amee woon 2017 la mooy élection législative yi jamono boobu ñàpp waa APR lañ woon kon jàpp naa ne tey jii loolu moo ñu fekk sewaat li nga defaat nii nii tax chaque jour damay cité ñi nga xam ñoo parce dëgg tamit yàlla moom moo ko moom man Macky Sall ko kenn yoru sama mbir Sëñ Tuubaa moo yor sama mbir te may fal xaw ma leen ñoom ñëpp kon damaa wax ni mhm. il faut que Touba ñu sàmm ko ñun ñu fa dëkk parce que ñoom ñuy xëccoo ñëpp kenn dëkkul Touba ñun ñi ñoo dëkk Touba. yéen ñi féetee ci kujje te sant Mbàkke doon ngeen jubilé ne bulletin nul li ñoo ëpp euh, vote ñi nga xamante ne foofu civilisation am parce que ñun bañ nañ ba nga xamante ne bulletin blanc bi man mi maa ko porté woon parce que man maay meeru bulletin blanc Touba mm-hmm. parce dama wax ni ku ma bëgg woteel ma nekk maire woteel ma bulletin blanc li tax ma defoon ko tamit mooy Macky Sall moo ñëw Touba wax ni bulletin bii mooy bulletin muy benn bokk yaakaar ma teg sama bulletin muy bulletin blanc bulletin blanc bi gagné bulletin Macky Sall tey bu fekkoon te ni maam si dëgg dëgg dëgg dëgg bi loolu est war ko sëñ bi parce que bi moo moo bi du bulletin sëriñ bi ah. wax naa si benn yoon wax naa si ñaar yoon wax naa si ñett yoon Macky Sall moo ñëw liste unique boobu Macky Sall moo ñëw Yaakaar la ba mu koy wax sëriñ Bass Abdou Xaadir ma nga toog ca intégration hôpital bu Touba bi. Mm. maa ngi toog. mu ne yéen waa Mbàkke na ngeen a ngeen. Mm-hmm. yéen waa Touba na ngeen góorgóorlu bii yoon parce que bulletin bii sama bulletin la. Mm-hmm. ma ne ko nag comme sa bulletin dinaa wut bulletin bu la contre moo tax ma indi bulletin a bi liste bi sëriñ bi mooy tànn ku ko neex. mu nekk maire. kooku sañ-sañu sëriñ bi la. code électoral bi dafa wax dëkk yëpp dañoo war a am ay liste. Mhm. ba mu am parité lu tax Touba nekk exceptionnel. Mhm. mooy li Touba li mu am borom moo tax. mais bu fekkente ne tey jii ñoom tànn nañ maire. kooku am nañ sañ-sañ waaye fi ñu ko def nga xam ci liste bi ñu ko def nga xam Macky Sall nee na ab listam la. Mhm. génn ma man génn ma dëkk ñaa génn Fallou Mbacké génn si Cheikh Mbacké si Cheikh mais euh, loolu boo nee liste sëriñ bi te njabootu sëriñ bi nga xam ñoo si waroon a nekk ay tànk pour war a mën a bénéficier wu ñu génn leen si jël ay policiers yu bokk benn bokk yaakaar teg fa kooku bokk yaakaar la loolu moo tax li ma def te bu doon suba ma ñu dem ci sa assemblée boobu noonu yow sa beneen naataango député di opposant di Guy Marius Sagna am lu mu yëkki ci kàddu bëgg leeral ci keesu assemblée ni ñu koy yore yow nga attaqué ko xam nga du attaque xam nga man damaa wax dëgg te yàlla tax parce que man ba may nekk député xaw ma Guy Marius askan wi ñu fal dafa am lu ñu yóbbu ensemble soxlaay Touba soxlaay population bi laay wax keesu ensemble ñaar fukki milliards la ñu wate ko mu war a nekk fonctionnement ak investissement fonctionnement c'est le salaire du député bokk kooku ngay wax dafa nekk vice président du commission ku nekk vice président du commission da nga am maanaam juróom-benn fukki junni yoo xamante ne en tant que vice président commission la da nga am ñeent fukki junni yoo xamante ne indemnité de la muy téeméer junni da nga am quatre cent francs yoo xam mooy 500 litres essence yooyu noonu da nga am li nga xamante ne mooy un million trois cent mooy sa salaire da nga amaat maanaam neuf cent mille francs yoo xamante ni moom moom la ñuy wax maan indemnité de voiture de transport boo leen boole mu nekk trois millions cent cinquante mille da koy am par weer waaw léegi lu mel noonu bu ko nit amee ci keesu ensemble lay jógee man mii ma di ko am keneen di ko am keneen di ko am mais est loolu war naa tax nag nga taxaw war a wax askan wi dëgg nga mere nit ki wala ànduloo ak moom nga bëgg a yàq deru assemblée ngir sa café. mais moom lëj ma boo man damay wax rek. xam nga il faut ñu wax man bu fekkente ni wax nga loolu. en tant que kaddu. bu fekkente tey nekk na assemblée. ñun la ñu war mooy dañoo war a wax li nga xamante ni mooy njëriñu askan waaye keesu ensemble dañu koo lekk. ngir ko xëy na contrôle bi nga xam jàpp nga ni war nga ko mën a contrôle assemblée contrôle ko ngir loolu ñun li ñu mën a wax ñun li ñu mën a wax te war ñu mooy 15 assemblée député yi lii lañ ci am kenn ko ne na ko wax. waa léegi vingt ah. milliards yi lim ci soxla mooy lu leer quand même. loolu day laaj toolu en tant que député am na ci droit. xam nga mu leer ñun ñii di wax a yow bëgg na assemblée qu'est-ce mais bëgg na assemblée naa la député bu nekk da nga siy gagné te war koo bénéfice nga xam tey trois millions cent mille francs yooyu noonu mën na dix kemb nga war ko jël pour séddale ko maanaam ñi nga xam ñoo ñooy baykat yi. pourquoi defuñu ko. yow bu fekkee bëgg nga jël sa xaalis de ko baïka Voilà, ma pour les étudiants mhm. mais est-ce que député Amoun sañ-sañ budget fonctionnement bi le fan la soulever quand même à l'Assemblée nationale. mais je ne fais pas def ay questions orales. questions xam nga comment réunion de bureau bureau. xaalisu ensemble bii nga xamante ne dama bokk ci commission président commission moo am sañ-sañu woote ko parce que ensemble sax amul sañ-sañu woote ko parce que président assemblée bu sampee commission yi commission yi ñooy liggéey ci loolu moom am na président na dem ci président ni ko dama bëgg ñu def réunion pour waxtaan ci lii bu lànkee mu bind fa mu war a bind mais doo taxaw ne assemblée dañoo lekk xaalis bi assemblée nationale neex ngeen di wax moo tax moo tax moo tax ku wax lu la neex neex te du man dinaa wax loo xam ne moom laa war a wax pour dëgg askan bi bu mën a xam euh, Fatou Abdou tab bi ci euh, euh, dialogue bi parce que dialogue boobu moom da cee dem au moment yeneen ci ñi nga xam ne bokk nañu ci kujje gi dañu ne duñ ca dem ak condition yu ñu teg alors déjà ci ci ci forme bi yow naka nga jàngate dialogue bu nu wootee ak euh, solo si waaw xam nga ñun dañoo am parti politique ni la mouvement nekkal fi askan déposé na maanaam ba am récépissé war a dem si élection yi 2024 bu neexee yàlla soppi ak doomu daara une grande coalition boo xamante ni 35 organisations ak doomu daara la grande coalition soppi ak doomu daara parce que 1960 ba léegi ñuy jox jàngkat tubaab yi ay réew mi réew mi sansewul il faut ñu indi lu bees pour ko jox doomu daara yi ñun bi ñu xamante ni nañ dialogue bi dañoo waxtaan ak suñu waa parti waxtaan ak suñu coalition parce que nag lu may def lu nekk comme que président Ablaye Wade mooy te dafa am loo xam ne daf ma ko defara muy tànga ci jamono yi ma waa yeewu askan wi génne ne doo bokk ni doo bokk ci seen aafaru affaire tàppale yooyu waa PDS jël ma jàppale ma ma bokk ci liste bi gañee leen Touba kooku lu may def damay soldaate ak moom bi ma leen waxtaan nii la man waxtaan naa ak sama parti damay dem si dialogue bi bu ma invité ma jot sama carte invitation ma waxtaan ak waa parti bi comité directeur bi ñëw ñu jox ñu li nga xamante ne mooy suñuy point yi nga xamal war yóbbu ñu ne bu ñu demee nañu waxtaanee ci lii bu la joxee kàddu nga wax ko bu la joxul kàddu nga jël ko nga déposé ko la nga xamante mooy sa mémoire. mémorandum ko bi demee bi ñu joxul kàddu ñu ne juróom lañ jox opposition bi kàddu ma xam ne juróom yooyu comme bokkuñu si ma jël ko jox ko président Macky Sall jox ko ministre de l'intérieur ginnaaw bi ma yónnee sama kàddu ndax bu ma yónnee kàddu du ma dem. bi nga est point yi mu si la article 57, nga xam code électoral bi. ku déggul ne article 57. ah article 57. code électoral bi. dama bëgg ñu ko article 29 et 30, dama bëgg ñu ko. Mm-hmm. daal ni Macky Sall article 27, tënk yow mënoo mandat. mi ngi ci proposition daal ni nga xamante article 28 bi nga xam moo ne si bi ni ku déggul tey am na lu la tënk mooy ñii pour ñu nekk candidat il faut que maanaam ñu dindi li nga xam moo ne si règlement intérieur bi kii pour mu bañ a nekk candidat euh, article 27 moo ko tënk man article 28 moo ma soxal en tant que doomu daara aw ma sañ sañu dem waxtaana réew waxtaan affaire jafe-jafe pétrole bi waxtaana situation réew mi ak dund bi loolu moo waral ñu dem si dialogue bi ñu demee tamit bi ñu noppee dañoo dénk Moustapha Niass mu jiitu ko uh-huh. bi ñu noppee Moustapha Niass woo ma xamal ni man li nga xam mooy dialogue politique bi dana tàmbali bi sàngam ki nga xamante ne maanaam moo nekk maanaam suñu représentant muy docteur Ali Anne mu jiite cadre yi mm-hmm. fi ñu toll may waxee yow moo ñu toogos dialogue bi démb lañ def réunion suba la ñuy defaat benn réunion di continuer mm-hmm. bu ñu fa noppi ñu def benn synthèse boo xamante ni dañ ko indiwaat ci parti bi avant ñoom ñu dem pour waxtaan président pour développé teg ni ni ay càkkutéef bu ñu yeggee ci cappaandaw la muy conclusion yi daan ko xam nga ñun dañuy def proposition ñun li ñu gënal mm-hmm. mooy ñu waxtaan ba déggoo parce que parrainage bi war nañ ko dindi war ñu wàññi ko modification code électoral war nañ ko def modification code constitution bi nga xamante ne am na ñoo xam ne tënk na leen war nañ ko def mais loolu lépp nañ si waxtaan man bu ñu waxtaanee ba dégg lu ñu tënk rek baax na man li ma bëgg daal ñu jëm si élection yoo xam ne dafay am dal ñu war a bokk bokk ñu wërta bokk bañ a bokk te bañ a taar réew mi par rapport à l'Assemblée nationale dafa am 500 millions yoo xam ne dañ ko jagleloon ñi nga xam ne dañuy faatu bitim réew ministre bi ne budget boobu jeex na yéen député yi ngeen toog di ko si seetaan. waaw xam nga du ensemble national boo xam ne moom la ko jagleel. bis bi dafa nekk si bis ministère des affaires étrangères. waaw fa la defoon xaalis mooy aide secours moom la ko tuddee. Mm-hmm. léegi 500 yi. dafay def boo xam ne dafa waatu bitim réew day dem si consulat bi ne foofu wala ambassadeur bi mu bind ñu jàpp leen mais dafa wax ni. ci at boo xam ne dafa wax ni. député yi ak ñi nga xam ne ñoo am maanaam alal wala ñu am dool bu seen mbokk faatoo au lieu que ñoom ñu mën leen indi seen xaar dañuy dem si kees googu wax ñu indi leen si loolu la léegi xam 500 millions yi ñaata néew la indi. waaw kay voilà waaw léegi nag la kaa mooy comme moom wax na ko. Hmm. danañu ko expliqué ñaata néew la 500 yooyu indi ak néew yooyu fan ak fan lañ jóge waaye lu si mën doon rek bakkan moo gën a for 500 millions. très bien merci euh, mouvement nekkal fii en tant que député à l'Assemblée nationale ñu ngi lay gërëm candidat à l'élection présidentielle